di leen wax ni tey encore suñu clients yi daañu fanaani police li waral nag ñuy fanaan police mooy dossier bi moo sotteegul xam ngeen ni démb ba tey ñoo ngi nekkoon ak procureur de la république dossier bi mu ngi soog a àgg ci cabinet doyen des juges yàlla def nag dossier bi mu diis lool. mu am ay éléments yu bëri ñun avocat yi tam macha allah ñu bëri si Xaasim Touré ngi ni taxaw sama wet Borso Pouy ci la Demba Siré Bathily ci la euh, Baba Diop ci la Cheikh Amadou Bamba Cissé ci la ak ñeneen ak ñeneen bu fekkee fàtte naa leen ñu baal ma mais ñun ñëpp ñoo ànd manko war leen a taxawu loolu tax na ba tey mënuñu woon xool dossier bi càmbar ko ba gis ci loo xam ni dina mën a def suñu défense client ñu ànd ci doyen des juges nag dossier bi ñu euh, reporté ko ba suba incha allah ba subaa daañ fi dellu si ñu des nag ci ndogalu doyen des juges mais ma dolli si nii suñu client yi ñame nañu dossier bi lu tax ñu ñame ko. ndax ñoom ay politique la ñu ku ne xam na politique ñetti néeg la bii da ngay dem nguur bii nga nangoo dee bii nga nangoo dem kaso donc lu leen fekk rek ñoom ci seen conviction politique dinañ ko gàddu incha allah bu fu ko yàlla teg donc loolu moo tax raf wu ñu tiitu ñu jaayi wuñu ñoo ngi xaar suba incha allah defante la rek daa daañu defante